salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum YouTube man la seen xarit Mafda Baba maa ñëwaat Facebook bangok Mafda Baba Instagram bi Mafda Baba ak benn F la du ñaari F bi Instagram bi ak euh, Snapchat bi Snapchat bi mi ngi ko Mafda Baba la ak ñaari F follow leen ma so tey dama ñëw ci benn beneen fànn laa ñëwee ci Dip Doundou Guiss maanaam album bu bees bi ñu ngi koy wax. Euh, euh, LNN loo ñemee ñàkk mu ci am benn titre bu ñuy wax mais mu def ko clip so clip bi lañ ñëw nag pour waxtaanee quoi clip bi nice na trop xam nga ku ko réaliser mais c'est nice nickel lépp nga ciy gis xam nga bu dee africaine bi mais dafa sombre quoi dafa lëndëm xaw ma nag lu tax mu lëndëm quoi mais bu mënuñu gis action yi carrément mais c'est joli loxo yi fii solo yi affaire yooyu noonu xam nga costume bi c'est bien nickel quoi ni ñu ko defaree mais c'est dafa lëndëm quoi dafa sombre ci man. ci biir son bi woy na ci classe na ci gars yëpp ah di leen wax ne mooy seen nightmare mooy hip hop Sénégal bi di leen wax mooy seen nightmare nightmare mi ngi signifier musiba ci wolof noonu la signifier ci anglais musiba mu ne rappeurs yeeg ñu rek show bu jëm. ñu show bu jëm mooy seen musiba. man benn son bi ñu LGT LGT LGT loolu ñu teg man si sama bosi ak BMG beneen mu tuddee ko fuck you nigga muy FYN abrégé ko muy fuck you la bëgg wax mais sañu ko bind. ñaar yooyu yëpp da cee clash one lyrical clash yi ñëpp ku nekk ci clash wu rab bi maanaam ci rab di rab ñëpp da leen a clash wax wax leen maay maay seen papa xam nga wax boppam quoi tagg boppam loolu loolu moom dib moom foral la quoi moom son yëpp presque loolu lay doon ci yëpp ci lay concentré wu. bu tax one lyrical mer génne son ni tudd ko directement ne ko moytuwuma la mootu moytuwuma ko dib xam boobu wax yu ñaaw quoi mais ci rab la quoi game la parce que lii moo taxoon mooy son bii ni wax fokk yow ni nga boobu noonu FYN dem la ngeen xool ko di ngeen gis ni mu leen wax ak beneen mu tuddee ko loo ñu teg bi yooyu itam yëpp man si sama posé ak BMG à part ça clip bi sombre na nice na trop ki ko réalisé mais su ma soñoon mu gënoon na clair quoi pour ñu mën a gis kanam nit ñi xam affaire bi rafet mais dafa lëndëm de trop quoi xëy na peut-être lu mooy night mais moo tax so moo tax mu lëndëm nii mais waroon naa gën a leer xam nga costume bi rafet na réalisation bi rafet na ça parle trop quoi ñu bàyyi la ngeen seen clip jëleen seen temps après ngeen dem xool ñaari ma la mooy FYN bi ak ak loolu ñu teg bi muy LGT bi ñu bàyyi la ngeen seetaan bëre daan ñibi jël seen kaaj ñibi du que rek que fini, que fait ça firi tabac building defe sens ci biir ci biir range bi minis fuck underground bitches Cholera, bitches Domeram bitches joxe taat pour da ngeen saxay bitchi ci ci bitches ku rap pour fi dama laaj iri Chuchu, snap nyan, wala kuku snap city man may pagoti yéenay samay place plastique My président FIFA yéenay oreka bichis Jangal sa papa sa maam bala ma sax kim gis ma may mbam, mbaam maa mbam kif kif tal sa jëmm sa ba Asaman si xiin kaay me revanche jox le dixième chance ki the nightmare you know the nightmare is me doo defee gàtt noonu yama jaar saw la ngay naan nga ne xon yàlla jàpp toog leen seen place te fomp samay daal or la may gas ni nga foog Sénégal da ngeen congelé man sa carrière oto bu paan la sa album tu mbaam la sa bras long loxo ku gaana demoo fen poto courant nga sarap peur ci pochette maa ñaan kase ko ne ko mu baal ma ne leen munuñ ci man tus ni tubaab beeg Cheikh Ahmadou Bamba roy du niroog piir benn boy du firaw diib ni nga foog yu munoo shit lu dul dox ay kilo shit ma ne fuck diplôme bi du may toog ci bureau bi maa ngi bandi yi police di daw ngay daw booy gis police du ma leen caabi waaye ku rëccu dee kuñ sacrifié nga ni kuntaakinte pour seen i bekk di suul seen i néew pour recycler nga pub sa tubéy ci ay archive laa def ku mën si yéen label du gàntax ay gumbay si ñee de ngaay bugguma si ren ki may suul rek a géej I'm the nightmare you know the nightmare nightmare. You know, the nightmare is me. Hear me right now for the murdering you mañana. I'm me, I'm the nightmare. Yeah, I'm the night in the you nightmare. Know, the nightmare the is the me. Hear me right now for the murdering you mañana. gis ngeen bi mi ngi noonu foofu la yem so na félicitation ak Dip Doundou Guiss le meilleur loolu laa koy tuddee kum clash nga dellu si waat wan léegi que li mu ko waxoon ci vidéo passé moo tax flow Sénégal moo ci bul ci àdduna bi moo tax Dip xëy na peut être loolu la gis sentir ko da mu ngi dee nekk talent mu ne xaaral mu clash ko pour que mu ñëwaat xam nga talent bi so beneen yoon te ni ki réalisé clip bi nag gën a defar clip bi gën a jël temps pour mu bañ ni ñu ñu a gis nit ñi mais à part ça nice quoi habillage beeg yëpp ah xam nga décor bi yëpp nice mais dafa sombre so félicitation man la seen xarit Maf da Baba maa fi ñëwoon def critique night mais next time bu leen fàtte subscribe thank you next time